Diouf ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dalee nag jàmm ci xibaar yi yéenekaay yi nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal di koy door ak laas yéenekaay dina xamal ne jamono ji nag defante ba ci diggante ki ne moom moo di Ousmane Sonko ak a tàmb lii yéenekaay maanaam daal lépp loo xam ne rek jëm na ci diggante Ousmane Sonko ak moom la ñu koy tuumaal yéenekaay gi di xamal ne ndax loolee kay du ak complot goo xam ne rek moo nekk ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak njiitu réew mi Macky ñu koy tuumaal moom moo di Ousmane Sonko exclusif yéenekaay

ci enquête yéenekaay duñu xamal ne maanaam daal donte nag ay yaram wa ay jafe-jafe amoon na ci wàllu wér-gu-yaram docteuram daal di koy diggal lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu massage moom Ousmane Sonko koy dafay xam ne ne laataa muy dem ca loolee tàggu nag la muy leeral moo di maanaam daal bu ñu koy defal massage boobee ñaari xale yu jigéen ñooy toog yéenekaay gi duñu xamal ne moom Ousmane Sonko dafay xam ne ne maanaam daal caméra de surveillance yi ma nga fa woon Ousmane Sonko ne ko nang

Ndiaga Ndiaye moom kay kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko dafay xam ne ne lii kay ñaaw na lool ci wàllu ko politique ak anam yi nga xam ne rek noonu la koy doxale maanaam daal Sonko bu fekkee ne bëgg nañu koo gañe mën nañu koo jaare feneen fu dul ay tuuma ci wàllu jigéen ak lu jëm ci wàllu viol ak yu ni mel laas yéen kaay duñu xamal ne laas yéen kaay duñu xamal ne ba tax na nag jamono ji ñi nga xam ne rek ñoom ñoo farak Ousmane Sonko dañoo xabaar gii nga xam ne rek jotoon na am ña ko génne di les échos gi di xamal ne ñoom koy jamono ji ay nga xam ne rek ñoo leen di xub ak di leen tëkk les échos ko naan gi ci réewum Sénégal réew mi loo xam ne rek jëm na ci tolluwaay gi ak jamono ji lu a amal googale koppar jot ko leeral moo xam li nga xam ne rek jox nañu ko artistes yi wala sax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di entreprise yi ba ci sax wàllu wér gu yaram juróom-ñaari milliards yu teg fukk ak benn ci ay millions la tribune yéenekaay di ñu xamal xibaar gu doy waar muy mbirum Fama Mbaye sage-femme nga xam ne rek jotoon naa faatu la ko sabab nag moo di ñàkk oxygène jaaral nañ ko Thiès ba Dakar moom sage-femme boobee di Fama Mbaye dafa mujjee faatu mu nekk nag lu doy waar ci réewum senegal